jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy émission boo xam ne dafay am ci rajo réew mi FM samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu. Euh, ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck du Diawa jàll mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Serigne Cissé euh, Serigne Cissé nag euh, di homme politique moom moo jiite Union des jeunes leaders de l'avenir moo jiite tamit mouvement ànd dooleel Antoine derrière le président Macky Sall Serigne Cissé ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Abdou Khadre di nuyu sénégalais yépp rawatina ñuy déglu rajo bii di réew mi FM di ñaan yàlla jàmm di ñaan tamit lépp loo xam ne ñu ngi ko fi wax. ci question yi nga xam ne fas yéene nga ñu ko posé mu nekk loo xamante ne question yu ñu yu ñu yitteel la tey it mu nekk loo xam ne Sénégal yëpp dinañ ci gis seen bopp incha allah. waaw Serigne Cissé dinañu wax ci li nga xam ne mooy tension politique bi ci Sénégal ak élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu daal di euh, dëgmal. Euh, waaye fi ñuy njëkkee rek mooy euh, yow da nga jiite kuréel bu tudd Union des jeunes leaders de l' avenir dooleel Antoine Dere le président muy ab mouvement euh, waaye sëriñ li ma jaaxal mooy Sénégal dafa ndaw ñi moo fi ëpp te ñu bari dañu jàpp ne ndaw ñi ànduñu ak président Macky Sall ndax yow loolu mooy sa gis-gis. waaw loolu moom du sama gis-gis ndax euh, Union des jeunes leaders de l'avenir benn kuréel la boo xam ne 46 euh, leaders yu mouvement ñoo xam ne dañoo jiite ay mouvement ñoo dajaloo ànd dooleel Antoine Dere le président Macky Sall. Eh, comme li nga wax sa question mooy jeunes yi eh, li ci ëpp dañ ne ànduñu ak le président Macky Sall ah kay am na jeunes yoo xam ne seen engagement ak seen détermination ci envers le président Macky Sall euh, ñëpp xam nañ ko ndax ñëpp euh, sekk am na yoo xam ne dañ ko fësalul rek mais le président de la république am na ay jeunes am na ay jeunes yu yu yu bare bare yoo xam ne dañuy jaayante. mais mais li ñu gis mooy euh, jeunes yu bari dañuy wax ne Ousmane Sonko lañu àndal. waaw loolu gis-gisu nit ñi la rek xam nga nit ñi dañuy gis-gis seen gis-gis ndax boo nee boo nee luñ ne teel rek nga ne damm na te fekk teel boobu du du teel. mën na nekk tës wala mën na nekk leneen léegi nag mbaboor boobu nit ñi di wax naan ànd am na ñoo xam ne ànduñu ak le président Macky Sall bëri na ñoo xam ne le président Macky Sall la àndal nekk ay jeune le président Macky Sall am na ay jeune am xëy na euh, contesté yi ak ni ñuy demee rek moo bokkul euh, dafa am loo xamante ne tey euh, ni nga xamante ne noonu la jeunes yi ànd ak le président Macky Sall dal gi ñu àndal ak ni euh, nga xamante ne noonu la ñuy respecté li yoon di santaane ak li yoon di def loolu moo waral doo leen gis yu bari ci ay yenn kii mais fi nga xamante ne président bëgg na fa dem wala foo xam ne woote na fa di nga gis ne jeunes yi dañuy génn bu baax a baax pour pour teeru ko. kon yow da nga jàpp ne euh, jeunes yi ànd ak Ousmane Sonko ñoom dañoo respecté wul yoon ndax yow yaa ngi wax ne jeunes yi ànd ak président Macky Sall ñoom dañoo respecté yoon. waaw xam nga Euh, dinaa la ci indil ay leeral ndax ñàkk a respecté yoon moo waral yu bari di am xam nga di saaga yeeg xam nga manigance yeeg influence yeeg lépp loolu ñàkk respecté yoon rek moo moo ko waral mais wax dëgg yàlla président Macky Sall moom ay jeune am moom ñu engagé lañ ñu déterminé lañ ci ginnaawam te amuñu lu ñuy def lu dul di ko déglu ci yar ak teggin ak euh, di ko jàppale tamit ci fépp daal. waaw mais mais mais Serigne Cissé aussi mënoo mënoo lànk ka ne Sonko am na jeunes yu bari yu ànd ak moom ndax gis nañ ko fu mu génn xale yu bare bare topp ko aussi. waa loolu loolu moom dama ne xam nga senegal dafa yaatu waale sax buy tëgg si jeunes yi dañ koy topp Ouzin Keita sax bu woote woon jeunes yi topp ko maanaam dafa am loo xamante ne fii. ku woote rek jeunes yi dinañ ñëw ku woote rek nit ñi dinañ ñëw mais ni ni président de la république amee ay jeunes yu déterminé wu loolu gis nañ ko fu ne fu muy woote fu ne da ngay gis ne jeunes yi dañuy ñëw dañuy taxaw dañuy mobiliser wu euh, wax dëgg yàlla am na ay jeunes am daal jeunes yi dañoo dañoo dañoo am ci dinamique bu ñuy doxee rek dafa am ci doxin doxalin bu ñuy def bokkuñu ak mbaboor wala ñuy mariirandoo wala déedéet ay jeunes yoo xam ne yu engagé wu lañ ñu wu lañ mais mais Serigne Cissé aussi euh, yéen euh, da nga yow da nga jiite union des jeunes leaders de l' te réew dañu jàpp ne euh, jeunes ñooy avenir réew mais jeunes yu bari ci Sénégal dañu gis ne ñu bari liggéeyuñu chômage bi aussi bëri na ci réew mi ñu bari aussi gis ne président Macky Sall cër bi mu waroon a jox jeunesse sénégalaise joxu ko ko maanaam rawatina ci bànqaas yi nga xam ne tey fa la ñuy décider fa la ñuy jëlee ay dogal pour réew mi. waaw le président de la république son excellence Macky Sall wax dëgg yàlla ku ko xam xam ne dafa fonk jeune dafa fonk jeune ba teg ay emploi de la jeune xam nga emploi des des jeunes teg na ko pour nit ñi mën a mën a mën a liggéey euh, liggéey nag euh, pour nga ne jeunes yëpp tey am na yoo xam ne ci côté boo xam ne xëy na côté boobu dafay des mais wax dëgg yàlla euh, boo xoolee diggante daaw ak ren bëri na ay emploi des jeunes yoo xam ne créé na ko wax dëgg yàlla te jeunes yi ñu ngi ci gis seen bopp bu baax nit ñi nag nañ bàyyi wax ji ñuy wax naan le euh, le président Macky Sall xam nga joxewul ay emploi des jeunes te nit ñi ñu ngi liggéey lu ne teg na ko fii pour jeunes yi te ñu ngi créer lu nekk maison de la jeunesse am na xam nga ñu ngi fay former ay nit ñoo xam ne euh, wax dëgg yàlla bu ñu génnee ci loolu dinañ am seen seen diplôme yoo xam ne dinañ am seen métier dem di mën di ko di ko di di liggéey xam nga di ci daan seen doole ba pare di ci gis seen bopp jeune nag tey emploi des jeunes nit ñi ci boppam pour nga jàppale ko il faut nga am ci lu mu ne li mu ne nag boo ñëwee fekk ko ci jàppale ko parce que emploi des jeune dafa yaatu te wax dëgg yàlla son excellence le président Macky Sall mu ngi ciy bay waaram bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla mu ngi ciy bay waaram bu baax te lépp ngir Sénégal mën a jëm kanam jeunesse bi mën a gis seen bopp ci ci ci réew mi bu baax. mais euh, Serigne Cissé ñu daal di wax ci li nga xam ne tey moom mooy fan yëpp gis nañ ko euh, kero président Macky Sall yëkkati na ay kàddu wax ne nañu nañu respecté suñu kilifa diine yi euh, ministre Antoine Diome wax na lu mel noonu ci Yoff ci ci appel bi wax ne nañu nañu fexe ba nañu fexe ba jàmm am mais jàmm ji bu ñu bëggee mu am est-ce que nekkul ci loxol président Macky Sall rawatina ministre bi nga xam ne tey moom lañ dénk kaaraangi réew mi beneen bi aussi euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci internet bi euh, di saaga yéen ñi ànd ak président Macky Sall da ngeen koo bëgg a tuumaal ne waa kër Ousmane Sonko ñoom ñooy saaga. waaw xam nga jàmm moom le président de la république son excellence moom la woote bi mu ko wootee dégg nga le ministre de l' intérieur bi mu doon def euh, cérémonie officielle bi fële ca Yoff li mu woote mooy réew mi nañ ñaan yàlla dal nañ ñaan yàlla jàmm am fi kon ku dem bay woote jàmm kooku war nga xam ne jàmm moo ko yitteel te yitteel gi mu ko yitteel moo tax mu ci woo bépp koo xamante ne yaa ngi yeewoo ci Sénégal wala ngay nekk ca bitim réew jàmm nag pour mu am il faut que ñu respecter euh, état suñu respecté wul état wax dëgg yàlla jàmm mënta am te état tamit du loo xamante ne benn morsa fobeere la saa yoo ko soxlaa rek fo fomp boo paree sànni déedéet république bi dañ ko war a protéger protégé ko mooy le président Macky Sall son excellence moom la fi yàlla teg teg ko fi muy le président de la république ndax kooku waruñu ko manque de respect waruñu ko jël yenn yi di ko teg ci kawam xam nga jàmm jooju nag pour mu am il faut que ñu xam ne le président daf leen cee rawatina la ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome bi nga xam ne moom discours am yépp li muy woote mooy apaisement na dal am na jàmm am non non xupaatewul euh, le ministre de l' ku ko xam-xam ne nit ku yaru la nit ku dal la nit ku bëgg réew mi la mosoo ko dégg mu def benn discours boo xam ne discours bi boo ko déggee da nga naan ah kii kat danga koy xeeb non mais si discours ministre Antoine Diome ay xuppaate daf cee daf cee bokk discours boo ko déglu bu baax da ngay xam ne dafay dànkaafuwaate di xuppaate. déedéet mosoo dégg benn discours le ministre de l' muy xupp amul benn discours boo xam ne day xuppaate la ministre de l' ci lu mu ne mooy li soxal Sénégal ci lu mu ne mooy liggéey Sénégal xool fi mu fi bi ñu ko joxee ministre bi léegi nañ xool développement yi nga xam ne ubbi na ko ci wàllu police ci wàllu sapeur. ci wàllu sécurité bi am ci ci Sénégal kon kooku. non moo amul insécurité moo am sécurité moo am sécurité moo am ndax moom fi mu fekkoon mbir mi ak tey seul le ministre boo xamante ne day wàcc sur le terrain di dem di nemmeeku nit ñi di xool ba xam ñu ngi ci jàmm di wax ak ñoom di saafonteeg ñoom di xool insécurité bi am di xool nan lay jëlee police ak gendarmerie pour kaaraange askan bi kon kooku amuñu lu dul di ko njukkal amuñu lu dul di ko jaajëfal. tey jàmm. Euh, réew mi bu bu si jàmm amul man damaa jàpp ne président Macky Sall moom ñi mu àndal ñoom ñoo ñoom ñooy yee fitna ñoom ñoo bëggul jàmm am ndax jàmm pour mu am il faut que mënuñu jàmm am euh, président Macky Sall euh, tey ñi mu àndal bu ñu defee dañuy wax lu leen neex dara du leen ci fekk te ku bokk ci opposition bi loo wax ñu dugal la ci kaso bi tey ñaata opposant ñoo nekk ci biir kaso bi ñaata militant Pastef ñoo nekk ci biir euh, ci biir ci biir kaso bi est que loolu bokk na ci jàmm bu opposition bi ne dañuy def seen manifestation ngeen tere euh, ministre bi tere ko ko wala wala préfet préfet euh, tere ko ko ndax préfet sax ministre moo ko Antoine Diome moom moom moom mooy patron yéen bu ngeen bëggee def seen i manifestation ngeen def seen i xam naa dinañ ñëw ci bu Mbàkke bi loolu est-ce que du yéen yéen yéen a yee fitna. déedéet xam nga yee fitna boo koy wax. mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci internet bi di def forcing di jël ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci le président de la république di jël kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci le ministre de l'intérieur di ko wax wax joo xam ne wax dëgg yàlla musoo dégg mu tontu le président de la république son excellence musoo dégg mu tontu ci kàddu yooyu jàmm moom ki ko yor wane na ne man kat jàmm laa bëgg nañ leen nañ leen nekk ci jàmm. mais dégg nga baat bi ñuy woote naan gat sa sa xam nga di wax wax yoo xamante ne mosul am Sénégal xëy na ñooñu ñoo bëggul jàmm te ñi nga xam ne yoon doo leen téye teg leen loxo ñoom ñëpp ku ci nekk danga jëf loo xamante ne da nga jëflanteeg yoon wala da def loo xamante ne da nga réew mi moom nga moom nga moom nga moom nga dindi te loolu nag wax dëgg yàlla kenn du ci bàyyi kenn ndax réew mi dafa am yoon te yoon boobu nag ku ci ne muy man muy keneen ku mu mën a doon boo nekkee ci yoon ñu yoon da lay bàyyi nga continuer ci li nga ne boo nekkul ci yoon nag yoon daf lay tegaat ci yoon loolu loolu la. léegi yow sànq yaa ngi wax ñi nekk ci internet bi di di di saaga tey ñu bari euh, dañuy wax ne kilifa diine yi dañ leen di saaga yéen yéen ñi ànd ak président Macky Sall mais dañ koy faral di tuumaal euh, opposition bi rawatina di ko tuumaal ñi nga xam ne ñooy militants yi Pastef yi te yéen gis nañ ay saagakat yoo xam ne président Macky Sall lañ àndal. ay saagakat yu ànd ak le président Macky Sall moom amul man de gisuma ko ndax wax dëgg yàlla ñiy saaga suñu kilifa diine yi boo xoolee ñi ci ëpp nekk ñu ci ci réew mi ñi ci ëpp ci bitim réew la ñu nekk ñi nekk ca bitim réew nag ñoo formé mbir dem ba nga xamante ne ñoo ci dugal ñi nekk ci réew mi ndax boo xoolee ku mel ni axyay daanaka day dal ci kaw sëñ Muntaxa di dal ci kaw sañ sëñ si Sy Mansour di dal ci eh, sëñ Mahi Niass di dal ci ku ne te loolu wax dëgg yàlla eh, Ousmane Sonko na loolu ak bëtam bu mujj bi mooy eh, eh, inauguration université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér def na ko dégg nga kàddu yu ñaaw yi mu ci teg kon nag am na yoo xamante ne ñoom ñoo koy def boo waxee ba pare ñu ne ñu ngi def nangam sëriñ si ñu ngi def nangam te suñu kilifa diine yi nag amuñu luñ leen ëpp ndax ñun dañoo jubb fekk fi loolu ñu liggéeyal lislaam ba lislaam fay leen lim leen faye nag bu ñu ko xeeb ñun mu nu mënuñu bootu lu dul bootu ci seen ginnaaw. mais mais sëriñ mais sëriñ axee na ton moom ngay wax ak ñeneen ak ñeneen di saaga nekk bitim réew euh, Ousmane sonk moom taxaw na ne képp kuy saaga bokkul ci moom léegi lan moo tax ngeen bëgg a insister ne ni ñuy saaga ci Ousmane Sonko la ñu àndal. waaw mais Ousmane Sonko la ñu àndal ndax tey mosoo dégg mu jël kàddoom moom Ousmane sonk daal di wax ne yéen ñii diw tudd diw ne ko diw saaga yi na nga ko bàyyi diw saaga yi na ko bàyyi. mais xay na moom am na noo xam ne du ko communiquer te du ko waxee parce que mooy kon que li ngeen di def nii man ànd bu ci àndatoon am na nu muy communiquer taxaw wax wala mu jël téléphone ne diw yow kat da nga ne man nga àndal dama lay ñaan lii nga teg ko ci suuf ndax man awma lu ëpp kilifa diine yi loolu bu ko defoon ñépp xam ne ah moom kat woote na jàmm ñii nañu dal na dinañ bàyyi kilifa diine yi nga xam ne dañ leen di wax loo xam ne naka su dul noonu la. te loolu nga jàpp ne ñooy saa kilifa diine yi. Eh, ñoom ñëpp waa Pastef bëri nañu koy def waa Pastef la rek ñoom dañuy wax naan ay kii ñii ñooy def lii waa APR ñooy def APR defuñu dara APR li ñuy def mooy le bilan le le bilan du président Macky Sall moom la wane moom la ñuy fësal ci internet bi mais amut leneen loo xam ne ay saaga la ñuy def wala ñuy salfaañe loo xamante ne wax dëgg yàlla mu jëm ci kilifa diine ñi koy def daal xam nañ leen moom ñi ko fi indi ñëpp xam nañ leen te xam nañ fu mu fu mu fu mu bokk. waaw waaw mais Serigne Cissé man nag damaa jàpp ne président Macky tey bu dee am na ñuy saaga ci dëkk bi euh, président Macky Sall daf si am part de responsabilité bu mag xam nga nan la ko ci amee président Macky Sall. fii la jël Souleymane Jules Diop mu nekk bitim réew di saaga président Macky Sall falu ñëw def ko ministre Kalifone Sall fii la nekk bitim réew France nekkoon France di saaga président Macky Sall jox ko passeport diplomatique même bu dee nanguwaat nañ ko beneen bi mooy Koura Macky député ñépp xam nañ saaga yi nga xamante ni moom lay moom lay def léegi kon kay yow lan moo tax nga bëgg a nangu ne waa Pastef mu ñoo am ay saaga te mënoo ko nangu ci biir benn bokk yaakaar waa xam nga lu tax duma ko nangu mooy mosoo dégg ku bokk ci APR jël kilifa diine yi di saaga xam nga tey ni ñuy waxantee lu ñaaw xëy na ay ñoom kuromakiik ay ñooñu xam nga ni ñuy waxantee lu ñaaw ñoom ci seen biir la ñuy waxante mais bokkul tey tey mën naa wax man di waxanteek nit parce que loolu da koy gis ci biir APR politique la ñuy def nit ñi di xeex di dóorante di saagante loolu ci fu ne la dafa am ci kër am ci lu ne bokkul nag ak ki nga xamante ne mooy kilifa diine bi nga xam ne dafa am ay ñu koy yaakaar na muy xalifa général maanaam nit ñu bare bare bare topp ci ginnaawam loolu moom dafa ñaaw loolu moom mosoo dégg waa APR di jëme ci côté boobu ndax dañ leen a jox cër waaw ñii saaga daal moom mën ngeen xuloo xeex def lu nekk xam nga saagante mais saaga suñu kilifa diine yi moom wax dëgg yàlla loolu moom mun na ñàkk moom. Euh, beneen bi mooy euh, Serigne Cissé euh, nemmeeku nañ ne dafa bëri ay militants passifs yu ñu dugal ci kaso bi loolu moom lan la xuppaate la. wala lu xew ba ñoom euh, ku tëll rek ñu jàpp dugal ci kaso bi. waaw bëri na ci ñoo xam ne li ñu leen jàppee fekk ñu leen ñu toog rek ñu jàpp leen am na ñoo xam ne am jàpp ñu si kenn koo xam ne dañ la fekk nga fi nga toog ñu jàpp la am na koo xam ne xam euh, maa ngi maa ngi dig seetaan benn vidéo muy wax ne nañ leen dem ci gendarmerie bi ñu taal ko gendarmerie ñi yor suñu kaaraange réew nga xam ne tey. ñooñu dañ leen a war a jaajëfal force de l'ordre yi nga ne nañ dem ba foofu ñu taal gendarmerie bi dafa am yoo xamante ne sa njiile yi dafa am yoo xam ne dafa mën a ñàkk ci ci ci réew gis nga ñun ñëpp ay ndaw lañ te gis nga nguur yàlla moo koy jox ku ko neex te it yàlla moo koy jëlee ci loxo yi ku ko neex yàlla ki mu wax ne day war a falu ci yar ak teggin le président Macky Sall maa ngi fàttali ko en 2012 sëñ Sidi Maxtaar bi mu waxee ne nañ bàyyi coow li dafa yollee ko moom génn ndànk ca coow la doon coow daal di dem pour waxtaan ak ay militant génn ci loolu ba ni ko suñu borom joxee nguur gi kon dafa am loo xamante ne tey nguur jarul yenn yi ay dañuy taal bërki démb maa ngi liir benn kii boo xamante ne tànk reyuñu kenn koo xam ne dafa nekk ci ci ci ci ci ci judiciaire bi tànk reyuñu kenn ba yóbbu ko place de de l'Obélisque maanaam injustice du fi jeex dafa am yoo xamante ne wax dëgg yàlla nit mën ngay xeex mën ngay def lu nekk mais boo waree falu ak ki nga ñi nga àndal di nga falu mais am na yoo xam ne rancune bi ñu gis ak euh, maanaam jaay doole ak yenn yi ñuy gis ci ci ci waa Pastef dafa xaw a doy waar daal te yooyu wax dëgg yàlla ñu ñëpp dañ ko war a moytu Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp te bokk gi ñu ko bokk waruñu ko salfaañe waruñu ko yàq te ñii ma gis wax dëgg yàlla demaguñ ci pouvoir di yàq réew mi nii te buñ demee ci pouvoir moom dañ koy yàq moom Euh, Serigne Cissé ñu daal di wax ci li nga xam ne moo xewoon tey euh, Touba ñu fàttali ne yow euh, Serigne Cissé yow yaa jiite union des jeunes leaders de l'avenir mouvement ànd dool Antoine derrière le président Macky Sall tamit yow yaa ko jiite ñu gis ne fan yi la jàll. préfet bu Mbacké dafa tere ab manifestation boo xam ne wala ab meeting boo xam ne Pastef ñoo ko doon amal Mbacké te ñu gis ne sunu constitution moo may askan bi ñu am sañ-sañ Euh, di organiser euh, ay manifestation ku am lu la naqari euh, ñu gis ne préfet bu Mbàkke daf ko tere ba jàppante am ci ci entrée Mbàkke bi loolu yow lan moo ci sa sa gis-gis am na ñoo xam ne aussi am na ñu fa ñu ñu fa yàq seen alal loolu aussi mën nañ ko mën nañ ko waxaale beneen bi Ousmane Sonko bi mu duggee ci jumaa ji gis nañ ne bi mu génnee xale yi dañ koo topp Euh, coow li bari na daal fan yi ci ci dëkk boobu di Touba lan ban commentaire nga ci def. li may njëkk a ñaawlu ci côté boobu mooy dugg ci jumaa ji jumaa yi sëñ Touba ji wax dëgg yàlla ñi taxaw ci kaw miir bi ñii di yuuxu. te yuuxu naan Ousmane Sonko di jërëjëf Serigne Touba ji dafa xam nga sëñ bi waxoon na ci loolu daal ne li ngeen li ngeen di wax di ma topp naan jërëjëf Serigne Touba maanaam loolu moom arrêt eh, eh, maanaam dama ko bëgg ñu dakkal ko léegi nag loolu sëriñ Muntaxa ne woon damaa bëgg ñu takkal ko Ousmane ko ñëw ba foofu di ko dëggal ne nañ ma ko defal xam nga loolu tamit lu xaw a yéeme la. nañ ma ko defal nañ ma ko defal. laa ko mën tuddee tey ji mooy ay nit ñoo xamante ne tey bu ñu doon bu doon ay responsable tey maa ngi jëm ci Touba dañuy communiquer ak dal nekkat fii ma jëm ci ci jumaa ji laa jëm waaye nañu ànd ak dal ndax ñu wormal jumaa ji ndax tey foo jëm xam ne kër sëñ Touba la. xam ne jumaa ji jumaa yi sunu borom subhaanahu wa la sëriñ Touba mi nga xamante ne moom mooy sunu yaakaar ñun foofu la foofu la tëdd ñu war a am worma boo xam ne war nañ koo def foofu mais defuñu fa ab worma ndax gis nañ lañ fa dañ dañ doon jëfante ba li ci am am ci dañ koy ñaawlu li xew foofu ci Touba ak Mbacké. mais mais lan mooy. amu kay am na ci responsabilité ndax tey nit ki su nekkee da nga dem nga déposé nga ne danga bëgg a def benn manifestation. non li amoon ci jumaa ji laa waaw li amoon ci jumaa ji moom laay moom laay ñëwaat ba léegi ci ci ci ci ci côté bi ma xam nga tey li ko indi li indi jumaa ji moo indi forcing bi. tey jóge nga ci jumaa ji mënoon nga dem ndànk dugg ci jumaa ji waxtaan ak say militant comme ni ngay communiquer tey damay dégg communiqué bu ñuy def ne bu ñu def nangam bu ñu dëgg nangam bu ñu def léegi communiqué boobu lan moo tax communiqué wu ñu avant wax ne ah jumaa ji kat jumaa yi sëñ tubaa la nañ ko warmaal ndax suñu borom subhanahu wa taala moo tax ñu def jumaa ji sëñ tubaa nekk ci biir nañ ko nañ nañ ko warmaal mais ce que xamoon na ne bu génnee noonu la ko xale yi terto non loolu lépp lu ñu programme la am na ñoo xam ne def nañ ko dëkkuñu foofu am na ñoo xam ne dañoo ñëw foofu euh, fekk ko fa xam nga te loolu lépp lu ñu programme tamit aussi. mais mais maa ngi dégg euh, ku mel ni Lat Diop nee na bu doon bu nekkoon ministre de l'intérieur euh, day tere Sonko mu dugg Touba est-ce que kàddu yooyu tamit nekkul kàddu yoo xam ne kàddu yu ëpp la ci en tant que leader. waaw loolu waxin la waxin la li tax mu wax ko mooy waxin la ndax waxin mooy tey lu rafet lay bëgg moo tax mu wax loolu rafet li mooy. tey mënoo ñëw ci dëkk ñu ne la interdiction lañ la def ci ci wàllu manifestation bi nga bëgg a def nga ne ñu nga déposé ñu ne la benn signature moo ci manqué kat loolu mënta nekk gàntal lañ leen ko kon kat li nga waroon def yow su nekkoon na réew mi moo la ñor nga bëggoon a jàmm foofu ca Mbàkke bëgg ko ca Tuubaa ak war may dëkk ba li nga waroon a njëkk a def mooy ne ah xaaral ma bàyyi ndax comme que lii wax nañ ko nañ ko bàyyi ba beneen yoon ñu programmé ko mais defoo loolu da nga ne damay forcing lii dama koy def par force li ma bëgg a def dama koy def jiital ay ndaw ñoo xamante ne ñoo ngi toj di yàq jël seen champ bi yàq ko jël station yi nga xam ne ñoo xam ne ay doomu dëkk ba ñoo ko moom loolu wax dëgg yàlla lan la jotee ak ak doomu dëkk bi moom lan la jotee ak ak ak président Macky Sall ak ak ak force de l'ordre su nekkoon ne yow da ngay manifester dangay taxaw nga manifester li ngay manifester nga bàyyi yëfu jàmbur mais li ñu gis fee affaire de affaire de vandalisme la affaire de wéyu la. no mais mais mais Serigne mais Serigne Cissé euh, tey force de l'ordre yi policiers yi ñoom ñoo ñëw ci rond point bi diggante Mbacke ak Touba xale yi bëgg a jàll dem Mbacke mel ni kuy bëgg a jéggi frontière. ñu ne leen du ngeen fi jéggee frontière tey policier bu ñu bàyyi woon xale ñu dem ba déew côté Mbàkke jàppante boobu du am ci biir Touba boobu. waa interdiction loo xam ne dañ koo tere loo xam ne dañ koo tere lu ñu tere ba pare lan la ci nit ñi pour dem. policiers yi seen devoir la ñuy def manifestation manifestation bi li waral mbir mi mooy dañoo wax ne dañoo woote ca Mbàkke ñoom ñu juum ñu juum comme nañ defee woon ñoom waa coalition yi nañ defoon. ca ca ca ca seen seen seen liste ya ci élection ya juum googu ju juumoon léegi nag juum nga nit na la fii kat juum nga tey lii du fi mën a nekk wax dëgg yàlla da ngay jàppaat beneen dat nga demaat defaraat li ngay defar boo demee ñu jox la sa sa sa kii nga dem mais am na loo xamante ne wax dëgg yàlla su amee dañuy dañuy dañ koy naqarlu bu baax a baax parce que lii ñu def nii yàq nii toj def lu wax lu leen neex loolu amul amul amul jëriñ waaw mais sëriñ dafa am loo xam ne sénégal yi bari mënuñu ko comprendre ndax Benno Bokk Yaakaar ñoom bu ñu bëggee def seen activité doo mos sa gis benn préfet taxaw fii di annuler euh, demande manifestation wala meeting boo xam ne Benno Bokk Yaakaar ñoo ko organisé préfet de na sax concert yi lañ koy wax xaw ma booy boobu noonu nga xamante ne bi muy def euh, concert bi affaire bi ëppee loxo préfet dafa jox dafa def bind benn kii rek ñu dañu daal di koy annuler léegi annulation yooyu ñuy def ñoom def nañ euh, Kër Massar seen meeting dara fekku leen fi ñu def ko ba mu ba mu pare mais ñu dem déposer ñoom ñu juum dañoo waroon nangu ne ñoom dañoo juum foofu laa bëgg nit ñi xamee sénégalais te ñu bàyyi di nax nit ñi nañu wax sénégalais yi li am. juum nañu ñoom ñoo waroon d'accord ne juum nañu ñu wëlbatiku ñoom dem defaraat pour dem déposer waat ci préfet déglu préfet bi mais nga ne da ngay forcing pour dem def lii mooy kan yow dafa am loo fasi loo naroon ak loo waajaloon ba pare pour jàmmaarloo ak force de l'ordre yi ndax mais Serigne Cissé dañu nemmeeku aussi euh, ci ci ci Touba Euh, ak Mbàkke dafa am ñoo xam ne dafa mel ni dañoo bëgg a jóg def benn campagne de diabolisation jëmale ko ci Ousmane Sonko nemmeeku nañ tamit ne Touba jamono ji euh, am na ñuy wax sax ne électorat bi fi PDS amoon Touba jamono ji euh, Ousmane Sonko moo téye ci ci loxoom ndax yow loolu nga jàpp. waaw loolu ay wax la rek nit ñi moom dañuy wax Touba moom dëkk la boo xam ne ku ne xam na ne électorat bi munoo wax ne kii moo ko moom munoo wax ne kii moo ko moom. nit ku nekk nag am nga sa santiment am nga sa yëg-yëg ne damay votel diw wax dëgg yàlla nit ku nekk am nga sa santiment xëy na le président de la république son excellence euh, le président Macky Sall am na fa ay militants yoo xam ne xëy na nit ñi dañoo dañoo ni ñu war a booloo ak ni ñu war a jàppantee ak ni ñu war a téewantee ba war a doon benn say loolu moo des ndax loolu bés bu amee rek le président Macky Sall am fa ndam mais nag électorat bu Touba moom kenn mënul wax ne kii moo ko moom kenn mënut a léegi léegi seen leader bi nga xam ne yow yaa jiite mouvement ànd euh, dooleel Antoine derrière le président Macky Sall moom dañ koy gis biir Touba te yi muy posé euh, ak ñi muy jëflanteel dafa niru ne moom dafay dafay politique jamono ji ci euh, ci biir Touba. déedéet loolu moom xam nga politique moom moom c'est le ministre de l'intérieur moom daanaka am na yu bari sax bëggu ko. bëggu ci di di fës bëggu tamit di ci di ci dox. mais man waaw politique boobu moom amul ndax euh, Touba ku ne xam na ne li jiitu moom moom doomu maanaam doomu dëkk ba la te taalibe dëkk ba la ndax moom digganteem ak tuubaa yàgg na ci jamono sëñ Saaliw la ñëw ci jamono sëñ Alaaji Baara ndax ñu bari xamuñu ko te dañ dafa war a leer nit ñi xam ko ci seen bopp moom Touba dafa nekk dafa bokk doon taalibe ci dëkk ba am fa kër. di fa dem ak njabootam. dafa politique. politique moom bë nit ñu koy jàppale ñoo fa nekk dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko choisir ne moom ñoom kat moom moo leen doy ndax wax dëgg yàlla li ñu bokk li ñu séq mooy sëriñ bi loolu moo tax ñooñu ànd ak moom ca liggéey bi nga xam ne ci loolu lañ koy dooleel di ànd ak moom ci lépp loo xam ne ne moom nas na ko wala sumb na ko loolu ñu ànd ci ak moom waa Touba moom noonu la ñu doxee mais doxewuñ ci moom ak politique. cofeel gi ñu am ci moom moo tax ñu jàppal di ko jàppale tey nit ku nekk am nga sañ-sañ jàppale ku la neex. mais est ce que def ni ni Aliou Ndiaye defoon ne man damay politique moom moo gën politique ba pare mel ni lu làqatu ci li muy politique. non moom politiqueul moom. mais man damaa jàpp ne day politique. déedéet le ministre de l' intérieur ndax li tax politiqueul mooy euh, boo xoolee moom ci ay doxilinam boo xoolee ci ay waxilinam ak ni muy jëfee ak ni muy liggéeyee nga xam ne moom politique ndax bu doon politique dina weesu fii le ministre de l'intérieur njaaxaanaay la tëddee Sénégal moo ko ñor am nañ droit ak ñun ñépp ku ci nekk nga mu nekk sa nit koo xam ne yow kooku moo la doy nga fas ne di ko jàppale jàppale gi nga koy jàppale nag taxut moom moo la woo ne ñëwal ñu ànd nangam mën nga ko jàppale pour jàppale le président de la république Macky Sall. waaw man man nag euh, li jàpp daal mooy ministre Antoine képp ku ñuy wax dafa am ambition ku jege Macky sàll man ci li ma jàpp ci sama xalaat ak sama gis-gis mooy Antoine Diome moo la ëpp ay ambition euh, ci ci wàllum politique. waaw le ministre de l'intérieur Antoine <laughs> Félix Diome gars yi lañ koy tuumaal nag bari na dañuy wax wax ju ju ju ju ne ci moom euh, wax ju ne ñu ngi koy wax mais nit ku baax la nit koo xam ne wax dëgg yàlla moom deful lu dul liggéeyal Sénégal amul benn ambition dul derrière la président Macky Sall li mu ko jox ci ndombo tànk muy ministre de l'intérieur ku ne xam ne mooy Sénégal looleen mooy li muy doxal loolee moo ko tax a jóg mais amul leneen lu nekk ci ginnaaw loolu moom jàppale ak liggéey bi nga xam ne le président de la république wóolu na ko ba teg ko ci loxoom loole lay sàmm te bañ mu naax saay ci loolu la nekk amul ci leneen lu le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome nekk jërëjëf Serigne Cissé yow yaa jiite union des jeunes leaders euh, de l'avenir euh, union des jeunes euh, leaders de l'avenir léegi Serigne Cissé ñu wax ci élection présidentielle deux mille deux mille vingt quatre dañoo gis ne société civile bi dañoo def benn pétition jàmm gën troisième mandat ndax dañoo gis ne président Macky Sall doxin wii muy doxee dafa bëgg a def beneen candidature. te moom moo fi taxawoon ne du ko def te ba pare borom xam-xam yu bari nee nañ président Macky Sall amul sañ-sañ di présenté wu waat ñu gis ne ay nitu Macky Sall ñu ko jege lool ay Mansour Faye ak seen ñoom ñoo ngi wax ne président dafay présenté wu waat léegi nag société civile bi ñoo ñoom lancé nañ seenu pétition pour président na jàmm gën troisième mandat te ñun dañoo gis ne mbirum troisième mandat 2011 ay nit dañ see faatu woon bëri na réew yoo xam ne la ko taal. mooy jéem a jubbantiwaat euh, ay constitution wala jéem force forcer troisième candidature mbiram troisième candidature yow ban gis-gis nga si am si président Macky Sall. waaw laaj bi moom du ci mën a sori li tax du ma ci mën a sori mooy dafa am ku mu concerné muy le président Macky Sall ñu am tamit constitution boo xam ne lañ lañ ca dëxëñ yaa ngi dégg Barthélémy Dias wax ji mu fi waxoon yaa ngi dégg Ousmane Sonko tamit wax ji mu fi waxoon. léegi la nga xam ne président waa Sall nag xam nga tey am na loo xam ne daf ne lim moo tax waxi le président Macky Sall wax ji mu fi waxoon boo ko jëlee nga nga boole ko comparé ko ak wax ji nga xam ne par Barthélémy jaas wax na ko Ousmane Sonko waxoon ko ngay xam ne lii nekk ci constitution bi man sama gis-gis man li nekk ci constitution bi nga xamante ne eh, kenn waxagul maanaam fan la mbir mi jëm ndax su nekkee am na droit le président Macky Sall am na droit def ko. su nekkee amul droit xam naa ne le président Macky Sall moom ci boppam day xam ne amul droit bi mais fii ñuy wax ak yow man de jàpp naa ne le président Macky Sall am na droit te mën na présenté waat euh, ci ci beneen mandat muy troisième mandat li nekk ci constitution bi moom xamaguñ ko. li nekk ci constitution man li ma gis ak li ma dégg li ma xam mooy le président Macky Sall am na droit présenté waat pour pour pour troisième candidature. léegi léegi Serigne Serigne Cissé ce que déggoon nga waaw wala déet. président Macky Sall 2019 mu ne su ngeen ma falee beneenu mandat pare naa ci déggoon nga ko wala déggoo ko. waaw mandat bi léegi bi mooy deuxième quinquennat bi ndax ñaari mandat yu cinq ans la mandat benn bi sept ans la moo tax ma ne la du ma ci mën a sori léegi nag deuxième quinquennat bi mu nekk nii moom lay eggale ndax bu dul dara nit ñi tamit dañ koo ñaan ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom dañ koy ñaan ndax le président Macky Sall réalisation yi mu fi def tabax yi nga xam ne def na ko fi. maanaam bu amaat beneen mandat boo xam ne dafay eggale loolu mu eggale ko su ko eggalee ci jàmm wax dëgg yàlla nag moom boobaa ñu xam ne dernier mandat la nekk mu jeex. léegi la société bi seen bi nag. xam nga ñooñu ay dañuy wax nit ñi moom dañuy wax rek ay société civile ak ñu nekk dañuy wax te li ñuy wax balaa ngay wax benn affaire wala balaa ngay jëf benn affaire da ngay fekk nga maîtriser ko ba xam lan moo ne ca biir ba pare waaye ñoom wax jooju moom nekkul wax joo xam ne ñun ñu lu ñu lu ñu mën a teg suñu loxo la daal. Euh, yéen dama gis ne da ngeen a yombal trop troisième candidature Macky Sall est ce que yéen da ngeen a jàpp ne Sénégalais yi moom dañuy toog daal euh, reer rek dem tëri wala añ dem naani attaaya li ñu maytoon Ablaye Wade 2011 ci mbirum troisième candidature ndax jàpp nga ne Sénégalais yi danañ ko may président Macky Sall. waa xam nga troisième candidature son excellence le président Macky Sall su amee droit def ko sénégalais yi wax ne ñoom kat ànd ak moom nañ dem ci urne dafa yomb buñ demee ci urne yi élection yi. nga xam ne le ministre de ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome organisé na ko tëddee ci njaaxaanaay ñëpp gis nañ amul amul benn problème non non amul benn problème ndax ñoom gañee fi ñu gañee yépp leer na ci ñoom fi nga xam ne gañe nañ fa leer na ci ñoom li nga xam ne am nañ ko ci élection yi nga xam ne le ministre de l'intérieur Antoine Diome euh, organisé organisé na ko wax dëgg yàlla lu leer nañ ñi la. loo xam ne amul benn ah kay dafa leer. waaw man gis ma leer na. yow loolu mun sa xalaat la mais sénégalais yi wax nañ ko sénégal yi félicité nañ ko ñenn ñi ñu si bari wax nañ ne wax dëgg yàlla élection yi lii mosu fee am. wax dëgg yàlla élection yoo xam ne jaar na yoon comme yii mosul am te moom li muy organiser yépp dafa jaar yoon. d'accord léegi Serigne Cissé man ma jàpp mooy Antoine Diome si boppam ministre Antoine Diome warut a organiser yi beneen bi mooy élection yi mu fa organiser bi passé dese naa leer ci bopp askanu Sénégal ndax mbirum parrainage bi. gis nga problème yi ci am ñu ay liste bi mooy dem ay suppléant mooy dem ak ay titulaire mooy dem élection yooyu noonu euh, xanaa ci ci ci seen bopp ci la élection yi leer ci yéen. leer na ci ñëpp élection yi seen yi dafa leer ci ñëpp. waaw ci ñëpp la leer ñi nga xamante ne ñoo dem ci muy opposition ak pouvoir ñoom ñaar ñi ci dem ci élection yépp xam nañ ne élection yi fi am ci transparence ci tollale lépp ci tëddee njaaxaanaay musta am gis nga le ministre de l'intérieur bii ñuy wax dootuñu am beneen ministre de l'intérieur boo xam ne tëddee na njaaxaanaay wala boo xam ne meilleur ministre ci depuis ñu am suñu démocratie ba léegi. indépendance ba léegi musta am. ci musta am la président le le ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome loolu moom musul am. ndax nit la koo xamante ne tey wax dëgg yàlla dafa respecté doomu aadama respecté ñëpp ndax day wax ne pouvoir ak opposition benn lañ kenn mun cee dem bàyyi morom mais nag dañu war di ku ci nekk fi nga jàpp nga jàpp ko te respecté li nga xam ne mooy charte réew mi. waaye le ministre de l' bi moom mënuñoo am beneen ministre de l' intérieur bu gën bi mais ministre de l' intérieur boo xam ne ku ñu organiser manifestation ñu gazé ñi ay grenade lacrymogène ñi fi réew mi presque ñëpp lañ gazé ay grenade lacrymogène loolu dafay fekk nga dem ci préfet nga déposé mu ne la fekk mu tolloo parce que moom leeral na ko ci assemblée national leeral na bay joxe ci benn misaal ca Touba nga xamante ne am na xew-xew boo xam ne dafa waroon am ca Touba ñu waroon ko couvrir euh, manifestation. daanaka force de l'ordre yi dañ ko war a couvrir mais léegi su fekkee ne yow manifestation bi nga dugal am na ku dugal leneen wala force de l'ordre yi disponible ñu pour mën a la loolu wala it nga juum ci lenn li nga xamante ne yow tey liñ la wax ne la jëlal li pour nga dem déposer ko mënoo déposer jaaroo ci yoon boobu wax dëgg yàlla mën nañ la ko bañal buñ la ko bañalee nag da ngay bañ a forcer boo forcer nag wax dëgg yàlla réew mi moom dafa am yoon te force de l'ordre yi nag duñ seetaan yàq réew mi. léegi lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko euh, ñu bari dañu bëgg dañuy xalaat ne président Macky Sall daf ko bëgg a jaarale euh, fi ñu jaarale woon Khalifa Sall ak Karim Wade fexe ba bokku ñuy élection dañu jàpp ne Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg loolu la Ousmane Sonko sax di wax nee na Macky Sall dafa bëgg a làqatu ci justice ngir mu bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 yi. le président de la république fan la jaaral Khalifa Sall fan la jaaral kenn. dañu ne moo nekk ci ginnaaw yoon. noo non non le président Macky Sall dama dëkk bi képp koo xam ne da def lu dul yoon. yoon dafay dal si sa kaw kum mën a doon ñooñu fañ jaar ak yoon yoon lañ fa jaaral jaar nañ fa ak yoon ba loolu jeex ñu nekk ca leneen le président euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ne moom dafa taxaw wax ne am na nangam ak nangam ak nangam ci wàllu mambay ñaak ak ci wàllu dossier bi mu am ci Adji saar loolu nekk leeral ko bu demee ci kanamu yoon mu leeral ko fa bu ko fa waree leeral dina leer su nekkee nag lim leeral lu am la yoon da koy bàyyi su nekkee nag loolu lim leeral kiiwul euh, leerul boobaa nag dafay am dafay dafay dafay am jëflante ak yoon rek loolu kese la. mais mbirum Mame Mbaye Niang tey yow rapport boobu euh, Serigne Cissé yow xam nga ne avant Ousmane Sonko di wax mbirum rapport bu épinglé Mame Mbaye Niang yow yàgg ngaa dégg ñu ne Mame Mbaye Niang rapport daf ko épinglé te ñu bari aussi dégg nga ñu wax ko. waaw rapport boobu ñu ne moo ko épinglé. yàgg ko wax ko. waaye waaw moom laa lay wax xam nga xam nga dangay dégg ñu koy wax léegi nee nañ diw bii nee na am na firnde yi wax dëgg yàlla ki nga xam ne nee na am na firnde yi kooko dem jël wane na man kii amul li muy wax amul dem porte ko plainte ñoom ñaar ñu war a toog ñu war a jàkkaarloo ak yoon xanaa nit nag doo ko ne yow li nga def. def nga nangam mu ne la defuma nga ne def nga nàngam kooku wëlbatiku wax la ne la léegi nañ dem ci kanamu yoon nga leeral man li ma def kooku kay xanaa bu defoon dara du am sañ-sañu def loolu. ko waxante nañ waxante wax moom dafay dafay dafay jaadu rek yanu yanu maanaa mais. mais gis nañ bi mu génnee tribunal euh, am sañ-sañ ñibbi xale yu xale yi ko bëgg a gunge euh, am sañ-sañ gunge ko ndax loolu def nañ ko fi président yu bare bari Ablaye Wade woolu nañ ko fi xale yu topp ko gunge ko. président Macky Sall woolu nañ ko fi nit ñi gunge ko Idrissa Seck woolu nañ ko fi nit ñi gunge ko ñu woolu Ousmane Sonko nit ñi di ko gunge muy ñibbi ñu dogale ko ci Soumbédioune bi dóora fa euh, ay grenade lacrymogène jël ko dugal ci seen oto blindé yooyu yóbbu ko loolu fan la tegee. non Ousmane Sonko ñibbiwul woon de gungewuñ ko pour muy ñibbi xam nga ki ngay gunge pour mu ñibbi mooy ki nga xam ne dafay day jël chemin pour dem mais su nekkee da ngay dem yow da ngay da ngay def ay rassemblement ngay def. te nit ñi tamit dañuy jàll ci yoon boo xamante ne ñëpp ko war a léegi nag nga occupé ko yow dong foo demee ba fenn nga taxaw nga génn nit ñi nga ne da ngay wax pour nit ñi loolu koy yaa ngi def campagne yaa ngi politique te su nekkoon ne ñibbi rek moo la taxoon a jóg wax dëgg yàlla mbir la boo xam ne tas na yow nag jaaral ci sa yoon boo xam ne rek yoon boo yoon boo mën a jaar nga dem su ko defee nag léegi coow du am benn benn wax du am loolu moo indi wax ji. mais mais Serigne Cissé euh, dossier est-ce que jaroon na muy dem ba chambre criminelle yow bu dee li nga ci dégg lépp ak rapport médical bi yu demee noonu. waa xam nga tey mbir nit dafa def te deful mooy li ma waxoon sànq rek tey man de war naa mën a dem toog ci sénégalais yépp di xool fu ñu ko mën a yóbbu sénégalais yépp toog ma ne sénégalais yi toog leen yéen ñépp ngeen seetaan ngeen déglu ñu defal suñu procès parce que moom nee woon na yàkkamti na procès bi am bii procès moom dafa yàkkamti woon mu am léegi procès bi am. war a am nga ne procès bi du am léegi procès boobu nag pour nga setal sa bopp yow nga wax nit ñi ne say nit ak nit ñëpp sénégalais yëpp wan ne yow li ñu lay wax nga ne nee nga amul léegi demal nga taxaw ci procès boo tamee taxaw ci procès yaa xayti nag wax dëgg yàlla lépp dina leer mais su nekkee da nga bëgg indi ne du ma dem fii du ma def lii bu ñu ma woowee du wuy loolu wax dëgg yàlla kon mbir mi xanaa dafa am lu ci lëndëm. jërëjëf euh, Serigne Cissé mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck tey ñu invité Serigne Cissé mi nga xam ne moo jiite union des jeunes leaders euh, de l' avenir mouvement ànd dooleel euh, Antoine derrière le président Macky Sall léegi Serigne ñu wax ci rapportu rapportu Cour des comptes. rapport Cour de comptes dafa def rapport ci xaalisu Covid 19 bi. Euh, sénégalais yu bari nag gis ci ak ñàkk yërmande ci yenn euh, yenn autorités yi ndax xaalisu Covid 19 bi sénégalais yu bari cotisé xalif généraux yi cotisé ferrailleurs yi journalistes yi euh, rapport cour des comptes génn ñu gis ne luubal nañ si lu ëpp juróom-benn milliard lu ëpp juróom-benn milliard lañ njort ne moom lañ ciy luubal ba léegi mbir mi nee nañu yóbbu nañ ko fa mbaxana na doonee benn. Euh, yow lan moo ci si xalaat. waa xam nga rapport moom bi nga wax muy rapport Cour des comptes bi wax dëgg yàlla le président de la république jël na ci ay matuwaayam jël ci ay matuwaay mooy ñi ngi saytu di ci def ay gëstu yoo xam ne képp koo xamante ne li ñuy wax su nekkee li ñuy wax am na ci yow yoon dal sa kaw loolu moom dégg ngeen président jël ci ay matuwaay yu yu yu am solo. Sénégal nag xam nga dañoo mën dégg téel rek ne damm na Sénégal dañoo dafa bëri ay coow bëri ay wax yoo xam ne dañuy wax te li ñuy wax dara du leen dara du leen ci leer euh, rapport yooyu su nekkee li ñuy wax ci rapport yi am na loolu yoon dina def liggéeyam ndax président nekkeewu fi pour protéger kenn yoon moo wax nit ñi ñoo wax te yóbbu ci yoon le président saisir na pour pour pour ñu saytu yooyu kon nag lu ñu mënul def lu toog di déglu li nga xamante ne moom moo ci war ci yoon war koo def dina ko def. jàpp nga dina mujj fenn. dina mujj fenn ndax ndax wax dëgg yàlla loo xamante ne le président de la république jël na ci ay matuwaay loo xam ne taxaw na pour wax ci ne du protéger kenn wax dëgg yàlla lu ci mën mënti am ak ku mën a doon loo xam ne mbir mi wax nañ ne lii am na. loo xam ne am na te ñu koy gëstu nag xool ba xam am na wala amul parce que nit ñi tamit dañoo tam tàmm di wax Sénégal dëkk wax la boo xam ne ku ci nekk da ngay wax li la li la neex rek ngay wax nangam te yow ba la nee indi preuve boobu doo mën a teg ci loxo nit ñi te loolu lu yàlla tere la lu yonent bi la te am na yoo xam ne mënoo looy def daal ak looy wax na nga indi ay preuve waaw sëriñ lu euh, ñu laaj mujjantalu question ci wàllu politique gis nañu opposition bi ñu bari nee nañu euh, candidat lañ euh, candidat yu bari yooyu yow lan moo ci sa gis-gis waa candidat moom ku nekk am nga droit nekk candidat tey li lay may ak li lay permettre nga nekk candidat soo ko matalee ku ci nekk mën nga nekk candidat parce que jongante la jongante boo xam ne ku ci nekk bëgg nga da nga bëgg am yéene fas yéene ko def wax dëgg yàlla ku ci nekk boo amee yéene bi te mën li nga xam ne teg nañ charte yi nga ne lii la nga ne mën nga ko wax dëgg yàlla mën nga dem nekk candidat mais Serigne man ci kàddu yi Sall moom président Macky Sall wërta bokk ci élection waaye am na ñu wax ne bu demoon ci élection sax bu forcé woon ba dem 20 pour cent na ko bañ a am ndax euh, sénégalais yu bari dañ ko wan ginnaaw. waaw loolu seen gis-gis la ñoom te nit ki li muy wax nee naa la Sénégal dëkku wax la su nekkee seen gis-gis la te ñoom pare nañ pour dem élection kay kon kay léegi mbir mi leer na bu ñu demee ci élection dinañ xam ba xam le président Macky Sall mooy gañe wala keneen mooy gañ li ma la mën a tax wax daal mooy le président Macky am na nit ñu ko topp am na ñu ko bëgg am na ñoo xam ne tey moom rek ci moom rek la ñuy la jàppale te incha allah li ma gëm ba gëm ko mooy mille 2024 candidature am moom ñu ko ñu ko bëggee mu nekk bu ko nekkee incha allah rabbi am naa bu yaqin ne moom kenn balaa balaa ñuy egg ci 18 moom dina dina dina baal. mais Khalifa Sall ak Karim Wade ñoo ngi wax lu jëm ci wàllum amnistie leen ndax yow d' ma ñoo am ne Wade ak Khalifa Sall. ah d' accord naa ci d' naa ci parce que ay citoyen lañ am na am na lu ñu amante woon ak yoon ñu dox ci loolu ba yoon teg leen ay daan léegi nag ci yërmandewu la président Macky Sall. wax dëgg yàlla ak euh, ci ci ci bëgg gi mu bëgg jàmm bëgg ñëpp bokk moo tax mu waral loolu euh, mu mu mu bëgg leen amnistie te amnistie boobu dañ koy rafetlu te ñëpp war nañ jàpp que ñu amnistie leen ñoom tamit ñu bokk ci ci ci élection yi di ñëw incha allah. waaw mais Serigne Cissé euh, dañu gis ne président Macky Sall bu demee élection présidentielle deux mille vingt quatre kan moo koy kan moo koy votel ndax Sénégal dañoo gis ne askan bi dañoo sonn njëg yi njëg yi yokk na. Euh, location bi euh, cher na Sénégal yu bari euh, tumuranke baykat yi sonn ndax mbayum ren mi boo dee xool dara baaxu ci napp gi pêcheurs yi dañuy dugg ci biir géej gi presque amuñu jën tolof tolof yooyu am ci biir réew mi président Macky Sall ñi mu àndal bëgg a forcer beneen candidature ndax loolu dina baax ci yéen. waa xam nga jàngat bi ngay def dafa am loo xam ne boo koy jàngat xëy na yow ci sama xel lay tool mais boo nee président de la république nit ñi war nañ ko ginnaaw te am nañ ñu ko gën a bëgg tey tey président am na ñoo xam ne dañu ko gën a bëgg tey ñun fii ñu nekk ci suñu mouvement bi li ñuy woo pour di jàppale la son excellence le président Macky Sall dafa bari te le président Macky Sall nag wax dëgg yàlla nit la koo xam ne mënoo wax ne nit ñi dañ ko dañ koo boddi wala nit ñi dañ koo bañ sa gis-gis nga nga nga wax sa analyse mais nit ñi nga xamante ne tey ñu ngi doon ànd ak moom am nañu dooleeku ci moom te mbir mi yaakaar naa ne jàpp naa ne su nekkee 2024 incha allah egg nañ ci ak jàmm le président Macky Sall posé candidature am. yaakaar naa ne incha allah dina amal dinañ Sénégalais dinañ ko jox beneen mandat boo xam ne li koy waral mooy gis nañ réalisation liggéey bi mu liggéey Sénégal. muy muy BRT bi TER beeg xam nga euh, yu bare bare boo génnee ci ci ci village yi ñeneen ñi yoon yi. maanaam liggéey liggéey na réew mi daal liggéey na liggéey boo xamante ne wax dëgg yàlla liggéey bu bu bu yaatu la boo xam ne ku ci ku génn rek di ci teg sa bët. mais sëriñ yéen seen wax yépp BRT ak euh, TER ngeen ñu tuddal ak euh, benn stade ak euh, quelques hôpitaux yu ngeen def mais Sénégal yi xiif bi sëriñ est-ce que yéen Sénégal yi dañoo sonn. xam nga sëñ ji li daanaka booy wax ne TER bi rek la ñuy wax. maanaam le président Macky Sall ni mu taxawee pour dimbalee ñi nga xam ne dañoo néew doole ñi nga xamante ne tey seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ngi leen di dimbale bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla fii nga xamante ne fii laay wax ak yow xam naa ci lu wér loo xam ne le président Macky Sall ñu ngi jàppale ñi nga xam ne mooy ñéew di doole ji mooy ñu ci wàllu faj ci wàllum dund ci wàllu lu ne le président mu ngi koy def dund gi ngay wax dafa cher lu ci bari wàññeeku na locati location bi ngay wax nii euh, gis nga euh, yóbbu woon nañ ko ci conseil delloo delloowaat nañ ko te du yàgg dara loo xam ne président bi dina ci jël dogal yëf yi wàññeeku ah, wax dëgg yàlla mbir yi daal wàññeeku na bu baax a baax léegi yow da ngaa bëgg euh, weddi ne Sénégal yi dañoo am jafe-jafe dundu ak jafe-jafe faju ndax faju gi aussi euh, faju gi dafa cher léegi nag bu dee da bëgg a weddi ne Sénégal yi dañoo nekk si jafe-jafe loolu sa xalaat la boo bëggee weddi tamit ne yi dañoo am jafe pour euh, pour faju tamit loolu sa xam nga jafe-jafe yi dundu ak jafe-jafe faju moom bari na ci àdduna bi fu ko am ndax am na loo xam ne dañ koy réglementé tey boo demoon ci Europe sax am na ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe faju parce que norme yi ñuy demee pour faju ji. wala lañ leen di laaj pour dem faju yi wala carte ba ñuy def pour am carte boobu mën a dem faju ci gratuite loolee day am jafe-jafe ci ñoom kon nag fii wax dëgg yàlla boo xoolee hôpitaux yi nga xamante ne son excellence le président Macky Sall teg na ko ak euh, yombal nit ñi pour ñu mën a euh, faju mu yomb ci ñoom wax dëgg yàlla ak xiif ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw loolu laa lay wax ne la le président Macky Sall xar na ci tànkam mu ngi koy def te loolu incha allahu bi balaa ñuy egg fii nga xam ne mooy 2024 euh, di nga gis ne mbir yi nga xam ne teg na ko lépp dina gën a dina gën saawan baawan ci réew mais Serigne euh, Serigne Cissé yow yaa jiite union des jeunes euh, leaders de l' avenir léegi ñu bari dañuy wax ne kilifa diine yi jamono jii jot nañu wax ci tension politique bi yow ban gis-gis nga si am. waa kilifa diine yi ñoom jàmm lañu mës di woote te ñu ngi koy wax saa su ne. mais tey dem nañ ba nga xamante ne nit ñi wegatuñ leen comme ni ma la ko waxee ci njëlbeenu émission bi. mooy mooy ñi nga xamante ne dañoo nekk ci internet bi ànd ak Ousmane ko di def lu leen neex c'est nag kilifa diine yi li ñu war a wax chaque jour ñu ngi koy wax démb rek moo ci mujj ci appelu appelu layan bi bërki démb moo ci mujj ci appelu layan bi di gis nga e, taxawaay yoo xamante ne ñu ngi koy woote di woote jàmm di nga gis nga Ousmane Sonko bi fa demee li ko wax mooy dafa am loo xam ne jaru ko bëgg a ci nguur te nguur yàlla moo koy joxe jarul dara kilifa diine yi nga xam ne te ñu ngi woote jàmm jàmm rek la ñuy woote chaque jour mais duñ leen déglu li ñuy bëgg wax ñu wax ko mooy kilifa diine gi mënta wax lu dul yàlla na fi jàmm am ànd leen ngeen déggoo yéen ñëpp réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk defar réew mi moo ñu tax a jóg defar réew mi nag ku tax a jóg wax dëgg yàlla waroo xaste waroo saaga waroo yàq waroo toj li nga war a def mooy fexe lay doxal réew mi nga ànd ci nga dem su nekkee da ngaa bëgg a teg nga ne da nga bëgg nekk njiitum réew nga xool fi nga war a demee jaar ko ci yoon bu rafet man de ci gis-gis boobu ma am man de moom laa jàpp te ñu suñu kilifa diine dañ leen a fonk dañ leen a wekk dañoo am fu ñu leen teg te amuñu lu ëpp mais est-ce que président Macky Sall euh, weg na kilifa diine yi. weg na leen boo xoolee boo de bu demee ci ñoom wax dëgg yàlla ku ci nekk buy saafoonteeg yow du maanaam doo bëgg sax mag la président Macky Sall dem ndax jàpp gi nga xamante ne ak yar gi mu leen wan ak taalibe gi mu leen wan te loolu moo waral fu mu dugg fu ne du fa am benn sens interdit ku mu ci bëgg a gis dina la gis. ndax li muy waxtaan ak yow luy jëriñ réew mi la te loo xamante ne mooy avancer réew mi. jërëjëf Serigne ñu jeexal waxtaan wi yéen waa mouvement ànd dooleel Antoine dernier le président Macky Sall mouvement bi kañ ngeen ko taxawal. mouvement bi nag bi ñu ko taxawee léegi yàggul ndax ñu ngi ko taxawal ci diggante bu bu gàtt boo xam ne wax dëgg yàlla ñun am nañ feneen fu ñu nekkoon foo xam ne fa lañ nekkoon. léegi bi ñu demee waxtaan ak le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ñu gis ko muy nit koo xam ne nitu jàmm la. ndax dem na sax ba ne ci réseau sociaux yi nit bëggoon ko gisee muy saaga sax wax fexe leen waxtaan ak moom ba moom ngeen di waxtaan ci débat d'idées te bañ ay saaga dindi ay wax yu bon yoo xam ne ñu ngi dama ñun bi ñu koy taxawal laa wax bi ñu ko taxawalee ñun ñoo am ñun si boppam ñoo dem waxtaan ak moom bi ñu waxtaan ak moom le ministre de l'intérieur Antoine Félix joom ñu ne ko dañoo am yéene jàppale la moom kat mu nangu loolu xam ne Sénégal moo ko ñor que ne dañ ànd liggéey Sénégal derrière la président Macky Sall ñun côté boobu la ñu àndee ci le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ñu koy gërëm bu baax nag ndax gis nañ bu baax acte yi muy def ak euh, ndimbal yi muy def ak jàppale gi muy jàppale jeunesse su Sénégal ndax wax dëgg yàlla mu ngi jàppale le président Macky Sall jàppale boo xamante ne kenn du ko yëg jàppale boo xam ne le président Macky Sall du ko yëg te mi ngi jëflanteeg jeunesse bi di jëflanteeg nit ñoo xamante ne wax dëgg yàlla li muy def ci réew mi daal ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ko ba nga xamante ne bu bu la président Macky Sall amoon euh, juróom ñu mel ni le ministre de l'intérieur kon Sénégal maanaam problème yépp koo xam ne soo ko wooy mu wuy la soo waxee ak moom mu tontu la wax dëgg yàlla soo ko bëggee gis mu gis la nga nga gis ko wax dëgg yàlla. mu nekk nit ku yaatu daal. sénégal Sénégalais yi loolu eh, li leen intéressé du ay euh, jot koog ñàkk koo jot li leen mooy. mu organiser élection yu jaar yoon beneen bi ñàkk kaaraange gi am ci réew mi euh, mu jëm ko mu jëm ko saafara loolu la Sénégalais yi di di xaar si moom. ba pare aussi mu yemale opposition bi ak benn bokk yaakaar mais mënuñu ku jóg ay takk deram ndax moo yilif police bi moo yilif euh, sous ñuy tere ay manifestation euh, mu yiite police ñuy gaas gaze ni ñi suba ngoon guddeeg ba cëkk loolu ci boppam Antoine daf ko war a daf see war a taxaw. gis nga sénégalais yi li ñu war a bàyyi mooy acharnement bi ñu def ci kaw le ministre de l'intérieur. loolu la ñu war a bàyyi la ministre de l' intérieur nekkeelu fi pour kenn le ministre de l' intérieur yépp la fi nekkal njaaxaanaay la tëddee comme ni ma la koy wax sénégalais nag mën na wax wax boo xamante ne tey mën na jékki-jékki singili kenn di ko wax di ko wax di ko wax te nee naa la le ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome dootuñu am ministre boo xamante ne moo gën a tëddee njaaxaanaay ba pare gën a mën a fonk liggéeyam bu nekkee ci liggéeyam amul dara loo xamante ne day dox ak lii loolam amul foo xamante ne tey ñun lépp lu ñuy def ñoo koy defal suñu bopp fépp foo xam ne le président Macky dafay dem ñun ñooy demal suñu bopp ñu ko ci laaj ndigal duñ ko ci def dara parce que moom ku occupé wul loolu moom dafa bëggul nit ñi wax ne kii kat dafa far wala dafa naaf naa nga ndax le ministre bi nag wax dëgg yàlla dëkk bi am na sécurité sécurité bi moom nañu waxante dëgg rek ki nga xam ne day jël otoom wàcc dem ci région yi wala muy dugg biir takaaru di xool di di superviser mbir yi wax dëgg yàlla ministre boobu moom war ñu def lu dul gërëm ko sant ko ci taxawaayam bi nga xamante ne wax dëgg yàlla am na foo xamante ne avant muy ñëw fu mbir yi tolloon ak tey fi mu nekk nii war nañ xam ne changement ak yokkute am na bu baax ci Sénégal ci sécurité te loolu moom ñépp xam nañ ko. d'accord jërëjëf euh, Serigne Cissé yow yaa jiite euh, union des jeunes leaders de l'avenir ñu lay sant la gërëm. jërëjëf sëñ Njiili Abdou Khadre maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm sénégalais yépp di wax na rek li ñu fi doon waxtaanee mooy luy defar réew mi di gërëm bu baax euh, ñëpp di gërëm le mouvement ànd dooleel Antoine derrière le président Macky Sall di gërëm le ministre de l'intérieur di ko ñaanal jàmm di ñaan ci réew mi jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen doon déglu rajo réew mi FM euh, mbokk yi li mu nekkoon seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot ci rajo réew mi FM bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadir Seck Mamadou Diaw jàll moo nekkoon ci wàllu machine bi tey ñu invité woon euh, Serigne Cissé moom moo jiite euh, union des jeunes leaders de l' avenir ñu koy sant di ko gërëm kon mbokk ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw incha allah.